moom ñu découragé waat. voilà tu vois loolu métti na bu fekkee ne itam yaay ji dafa doon loterie rek. xamul sax turu papa xale bi mu loterie dama ni bu fekkee ne da doon loterie xamul sax turu papa xale bi ndax loolu day am mu ne naa ko jox rek baara jenn mais xale bi day jóg di wër baara dana masa dal ci benn baara bu dalee ci moom nag ñëw poñale na la kaay xool gis naa ko nga xool ne ko du kii. tal beneen baara waxoon xale bi dëgg a gën xaw ma sa papa xaw waaw parce que am na ci ñoo xam ne boo toogee ñoom wax leen dunu dof waaye nag boo continuer na nga defoon ba yàlla nattu la nga continuer di ko def pour réparer problème bi du ma sa réparer wu problème bi day am benn diggante dëgg rek. Mhm. moo ko mën a saafara. parce que muy njëkk muy mujj du mës a dee xam nga des fois ñu ne xale la garaawul xale la tollu xamagul dara naa ko bañ a wax dara ah kay wax ah, wax ko rek. xale ay xale. bon waxal ak ñoom rek jar na sax si la foo nga enregistré benn affaire ëllëg ñu màgg tegal nga tegal leen ko. loolu mooy benn bi waaw. bu fekkee ne bi mu ko gisee ci kaar bi ne ko. te muy baayam. Mhm. moo ko jur. Mhm. xamante nanu mu xalaat moom ni mu ko négligé woyey am na nu doom may jigéen nga bàyyee ma sa doom dem sa yoon. Mhm. ba benn bis nga ñëw rek ne ma ana xale bi. Mm. foofu itam souvent jigéen ñi dañ lay dàq. nga def dañ lay dàq moom moom la def moom. sama doom kenn fekkuma ci. waaw ba ma say sonn gisuma la woon naka daw bàyyi ma noonu erreur mënu ko gën a rëy ndax waaja xamoo itam ba xam dafa amoon jabar. ami doom nëbbun ko am comportement bu mu doon doxale léegi nag bu ñëwee ba mu jaral ko mhm. gis la xàmmeeku la wàcc si oto baa nga xàmmeeku ko mu nangu mhm. mu jaral ko déplacé wu mhm. ñëw bari la ana xale bi li gën a rafet laa wax waaw ko itam na nga ko baalal xale bi nga xam ne yow yaa yor kàddoom parce que xale bi moom baal na papa mais boobu fàtte na xale bi xam nga des fois yow jigéen da ngay fàtte xale bi yaakaar ne yow rek ak moom yéen a yéen a jote voilà sóoraale woo xale bi ne ëllëg dina te jii màgg na indi na ko jafe-jafe day sëgg sax di jooy nga ne ko lan mën dafa nekk si problème parce que mi ngi xalaat ne tamit bu ko réglé wulee léegi nii mhm. bu bu demee wujji borom bi subhanahu wa taala xale bi dina tolluwaat ba tey si ay jafe-jafe tey moment bi mu war a toog di ñaanal yaayam dootu ko mën dootu ko mën place bi mu ñaanal la xolom sedd si yow waaw yàlla na fekk na ñaan sax yeex jokko bi mbokk ñu leen ci xaar 628 99 99 114 en tout cas yéeme na te bari na ci réew mi. waaw bari na ci lool lool lool lool. fi muy soxlaa ñaan yàlla na yeex. yàlla na mais li jiitu. mooy. mooy euh, ràcc sa grand mbubu. Mm-hmm. ne diw ko jëndal. Mm-hmm. muy sa doom. Mm-hmm. wala nga ni diw doo ñëw xool si gan gi mu ne la gan gan la nga ne ko félicitaire bi de sama doom jéem a ko jëndal. ndeysaan. fierté yooyu yaay di am. tiitër la. tiitër yu sew yooyu. da leen di suuxat mhm. da leen di dundal mhm. waaye moom xale bu góor bi itam mhm. fierté bi mu war a am ci sagal yaayam laataa muy àgg ci dee nag maa ko ñaanal ak yooyu mais sagal bi nga war a sagal satisfaction morale et personnelle day am ci yow parce que góor nga 18 ans da ngaa war a ami njaboot te bëgg nga bu ëllëgee nga toog nettali sa njaboot ne leen man kat sama yaay at mi ma ko jëndalee nangam. Mhm. sama baay at mi ma ko jëndalee nangam. loola moom ñoom dañ koy capter pour defal la ko ëllëg dañ naan sam papa mas na jëndal sama yaay nangam. Mhm. sam papa mas na jëndal papaam nangam. mais ba muy am 18 ans dañ koy mémoriser am fukki at ak juróom-ñett. Ah. jamono yi mi ngi am fukki at ak juróom-benn 26 ans. 26 parce ba muy am fukki at ak juróom-ñett la tàmbali laaj année papam kon def léegi mën nañu wax ne juróom-ñetti at huit ans. jafe-jafe ak yaayam. waaw si ana sama pap ana kuy sama pap xëñ na amoon nga beneen jëkkër nga nga pàppale ko ko mm. jël santam jox ko wala jël beneen santam jox ko. Mm. mu am si kàddante am si lépp mu dem ba lépp feeñ. Euh, xëñ na mer kenn ku nekk mer am na lu mu la yóbbee yaay ji mere woon na papa doomam ba daq ko ba doom ji màgg tey indi ko leneen. Mm. doom ji itam mere na yaayam ba tax mu génn est-ce que mer yooyu. nit ki war ngaa mer rek ngay ngay nga rek di am noo réagir. erreur la boo meretee na nga dese sago. Mhm. ndax nga mën a réfléchir euh, lu mu doon na nga ci digg doomu. dëgg la bu fekkee ne mer moo tax nga tere papa. yow jigéen. Mhm. doom day mas a màgg. Ah? day màgg ak jàmm. te bu màggee. <laughs> allo dana wër ay mbokkam. bul sonn. côté baayam. papaam am nay rak. Mhm. même boo nekkoon tey ma sama rakku papa. dinañ ko àggali incha allah am na ku egg si allo. allo Tata Thiaba. oui. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant yàlla bu baax tur bi naka la. li nga rafet na trop. man mii merci mhm. beaucoup c'est gentil. dëgg la dëgg <laughs> sama papa jooju Sawel. tonton sëñ Baara. tur bi naka la. am na tamit ma joxoon keroog dama xaw ci woon. man am na thème bu ma la joxoon trop taw xoo ci moom ñi nga xamante ne ñu ngi mayee seen ma kon keroog émission nga si wax. keroog pourtant ñu na trop. waaw lu si bari nag xam nga ñu nit ki mooy nettali boppam xam nga nettali géntu nit ki dafa am looy bàyyi lu bari moo tax bu ñu sañoon yow nga def ay jéego rek egg si fii foo dëkkee. man damay bii que xam nga rek ni mu demee. waaw ndax si bii ndax fi ma nekk la jamono yi ndakaaru gi ma nekk wala sori na ma. maa ngi Dakar waaw fexeel jëy itam dikk nag yow ñëw wax man ndànk rek kenn du yëg du dëgg. surtout nag si séeréer ëppee mariage forcé metti na trop. si ah, parce que yow loolu nga. waaw nekkul la nga doon loolu moo tax nga yaakaare foofee la ëppee. wa na si xeet bu nekk de. parents yi dañuy dund dañuy doxal loolu ba léegi. Mhm. waaye yow fexe seet si ñu yow tam. te xam naa ma li ma ciy dund fa metti te keneen ak keneen mu ngi siy dund. yow yaa sëy yow yaa sëy fukki at amoo si doom. waaw man mii parce que kañ la may bëggoo ko. dëgg la waaw doom bi nekkul yàlla moo tax may am moo la mayagul doom mais yow yaa sabab loolu. déedéet man yàlla ma ko may defuma dara parce que man jànguma sax war a xam lool. non non fukki at yi nga toog amoo doom laa ana lan moo tax defoo ko euh, amoo ko yàlla la wala. say pexe la ak yàlla li nga xam ne man bugguma moo tax yàlla ma ci. est-ce que defoo si ay pexe ak di ñaan ak yooyu. barke Sidna Muhammad def lu yàlla dëgg waaw moo tax xam nga yu bari dañ ko bëgg xam si li sabab ñu maye la woon te bëggoo doo doo dikk rek seet si ñu ah. waaw xanaa ñu yow nga jël sama numéro bañ a quitté dégg nga waaw d'accord ñu euh, jokkal ak fi sa numéro wala nga jël suñu bos rek dégg nga. waaw jëlal sama wuy ma dangay ngay bañ jox sa numéro si kaw léegi na quitté pas. Euh, nga jokkoo rama ok merci beaucoup bonne journée li ko dal métti na ko. ñor na ko lool nag ba bu sañoo nag ñu wax si te pourtant wax nañ ci lu bari sax semaine bee ñu génn mooy que ñu mayoon mariage forcé te mu def 10 ans te ba léegi amul si doom xëy na neen lu mu ngi nekk ak mbokk moomu ba tey jëkkër ji waaw xam nga foofu itam ni ngay waxee doom mm. ni ngay waxee yaay bul xeex mm. sa doom mm. ci papaam mm-hmm. waaw ba di ko ko nëbb xam ne day ñëw tey beneen kër waaw ne ko ana dundu xale bi mm-hmm. bu la joxee sa xel sedd sa xol dal nga kontaan nga dem jëli xale bi su la joxul xale bi jaaree noonu papaam jaare noonu bu ñëwee yaay am sam papa nga ne ko da ngaa a dox sa papa ñëwoon na ba dem wala yu demee noonu. Mhm. di ko xeexee di ko xeexee. noonu mu nekkee benn sens négatif noonu la nekkee aussi beneen sens. Mhm. ci mhm. yaay itam ak baay warul. bége bége. keneen wala ndamoo. wala mbokkoo. doomam. ci sëy. ba ba di ko lor. ba di ko imposer. ci mhm. sëy parce que yaa ko gën a xam xëy na xaalis nga ca biir moom xale la xamul lu xew. Mhm. yaa ko gën a xam delloonte njukkal a nga ca biir. Mhm. yaa ko gën a xam ak fami boobu parce que peut-être xeeboon nan la peut-être yax bu rëy lan wala lam bu diis ba tax nga jël sa doom bu jigéen. ne naa ko jëndee. sànq na ko de sama der. kii li muy wax naa ci sangu. Mm. daal di koy imposer mu sëy. bu bëgg jotee ba nu tëj néeg ba. Mm. yow yaay nekk ko fa bàyyi nekk ko fa doo fa nekk kenn du fa nekk ñoom ñaar rek. ñaari sens xat euh, néeg ba xat na euh, lëndëm na. Ah. wéet na itam te itam lal ba xat na ñu bëggante wu ah, bëggante la yaatal la yaatal taxul taxul mu xat du te taxul mu yaatu de eh, léeg-léeg kër gi mooy xat waaw parce que parce que ña say nekk la ña nekk sa biir la ñoom ñoo bëggantewul doy na waar en tout cas ni waajur di amelee doom ak non ni doom itam di amelee waajuram ak dañ la laaj ana nag surtout rawatina waajur naka nga sàmmee woon njaboot gi waaw loolu sa doom nag yaakaar naa ne musiba naaru laay la ndax kii boobu ba tey ngi euh, bëgg ñu wax si loolu te itam dafa war a xam ne ñu tem bi nañu koy defee kenn kii mbokk mi mooy ñëw wax temam du ñu sañ bu ñu sañ du ñu fekk ji kenn ngir mu wax ñu la muy dund ndax dëkk boo euh, kër goo dem am na problème waaye dem ñu fekk kenn pour xool ana lan lay dund bu ñu sañ ñoom ñoo ñuy fekk si waxtaan si ak ñun am na yoo xam ne sax duñu ko teg si tem danañ ko réglé si suuf bu ñu sañoon du egg si sax si tem bu ñu demee ba egg si tem parce que am na lu ñu bëgg mu am solution daal mais lu si bari dañu koy réglé si suuf am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan xam ñu ne yu bari réglé nañ ko suuf te egg siwul si kaw mm-hmm. barke yonent bi doo génn mukk ci mbedd te ñu la leen léeg-léeg waaw nga jox leen rendez-vous doot dikk ci àdduna. billaay parce que ku leen déglu la doon wut. waaw kay surtout ñu soulagé te ba ngay échanger ak fëkk nañ ca solution ba. Mhm. dem na dem nañu dellu si wul. billaay te léeg-léeg nga ni waa yow diw kooku moom nu may def ba xam nu mu mujjee. Mhm. da ngay bëgg a xam. billaay dëgg la parce la. Euh, jëlee la jëlee <laughs> kaw. dañ lay indil histoire boo xam ne. Mhm. da nga lii daal war naa xam suite bi. da ngay da xam ne rek defaru na. day na waar nekkoon mu dellu si. wallaahi mën naa la wax tur ba wax la dëkk ba wax la sant ba mais ci jong ci ci lingeer yi jigéen ñu jëkk ni mm. daana nu dikk ne seen papa toogal mu toog mu ne seen yaay toogal sama sëy bi dama bëgg ngeen dindi ko mm. ñu ne ah mbaa jàmm la nga ci am doom ju baax te bëgg naa jur jàmbaar mm. bëgg naa jur wàlliw bëgg naa jur nangam ak nangam mag ñi dañuy daal di toog waxtaan seen biir dindi sëy ba complètement dugal la feneen pour que nga mën a réussir sa sëy que dañoo xam ne yaay yu nangu mooy wàllu doom ben écoute sëy nag fa du question la nga sëyalee sa jëkkër mais nangu ba lu am solo dafay répercuté wu si doom yi xam nga nangu bi bu weesoo li ñuy wax bànjaxaan gaak yu yëpp ba xale judd jox ma lee nga cibtu sa mhm. doom a ngi xool nga tontu sa doom a ngi xool non ak bañ nga sax bañ nga déedéet sa sa borom kër bëgg laa sàkku ñu jéggal ma yow nga ne danga yow nga bañ. loolu tam nangu ñàkk nangu boobu foofu. loolu baaxul si doom dama waaw mbañ jaxaan. Hmm. foofu noonu. Hmm. ay bopp lal jéegu lal yooyu yëpp dama ko romb. dama ni hmm. suñu dikk xam nga loolu c'est spirituel. waaw am na sax ñu ko weddi. mais dama ni. li pratique. waaw palpable. plausible nga man cee teg sa loxo. waaw mooy sa doom bu jigéen mi ngi xool. roy toll ci trois ans. nga ni sa jëkkër maa ngi dem mun la foo dem nga ni ko pikin lu xew pikin nga ni ko waxuma la ko woon xaa da koo fàtte waaye waxoon naa la ko mhm. xew mhm. <laughs> kooku papa ji xam na ni tàgg tàggoo ko da koo yëgal mhm. ana añ bi nga ni seet ko ci waañ wi diw jox ko wala diw kay jox ko yooyu noonu xale bii day yaakaar ne loolu mooy dëgg te loolu lay demaale handicap boobu xale bu jigéen bi demaale mooy waral du mën a dem fenn ba sëy fa parce que day dellu si waat te doom jàngaaniwul yaayam mooy sëriñam dëgg la ah mhm. yow yaa ko bloqué yaa ko tee texe yaa ko tee dem ajjana yaa ko yow daal lépp loo xam ne lii yaa ngi koy def sa doom mi ngi koy copier bu dee safaan la par rapport ak sa jëkkër doom ji lay bon doom day copier loolu ñëpp xam nañ ko parce que parce que lu tax nga baara ma dogguma la mhm. que ko nga ko da nga koy dund ah. xam nga ku nekk yaa ngi dund loo xam ne yaa ngi nekk xale souvent si si kër ba ba néew na dem fekk ko fa da koo xam ne par exemple gis naa benn doomu rakk mi ngi nekk bi ñu toogee añ ni ba su jékki-jékki mu ne yaay ji paree ne neex na bari na keneen benn gan ñëw lekk ba suur waxul dara mu ne ko hmm. yow waxoo neex na bari na de voilà parce que moom si léegi neex na bari na c'est parce que xale du loolu na bari na hmm. imagine xale bu ndaw parce que dégg na ko hmm. te quatre ans la am kon xale léegi dootuñu xale xale yi dañuy copier bu baax dootuñu xale xamul lu ñu doon ñu jéggal ma ñoom xale yi ma nuyu Pa Omar ak <laughs> yaayam ca bëgg yi léegi nag bu fekkee ne yàlla def na nga sëy ak koo bëgg mm. mbëgg gi bu ci mag aussi cere ju neex ci la diw dàqe mm. mm-hmm. lu mu xaw a soxla euh, waaja bind na ko nooy sëyee soxna si bind na ko nooy sëyee mu ne lu sama jëkkër wax rek ma def ko waaw nangu rek ñu ne ko ah kon yow mënoo sëy mu ne lu tax ñu ne ko dangay xaar ba mu wax la ko kon war ngaa mën di anticiper mm, waa ñëw na nga kar ko potu ndox pare na nga summil koy daalam a teg na lu ma si wax naa muñ non sa jonge sa jonge sa jonge laa bëggoon a na pratiquer euh, parce que am yoo xam ne dama koy bëgg wax mais bu ko waxee si baane ma li nga sëy non non mais garaawul. dama gis ne ah waay ñàkk di def te métti na. da ngaa oh. bëgg da ngaa bëgg ruq ruq yooyu xoolal <laughs> ñi mën a kot. amuñu mbaax Badou. ñi mën a kot amuñu mbaax. <laughs> xam nga tax xam nga tax ñuy wax loolu. Hmm. xam nga koy wax. Hmm. ki mënul mbaam ki ki amul mbaam. ki ka amul. nu ko waay rombe rek. mu ne waay du nii waay. walaay <laughs> di critiquer. nee waay parce amul mbaam. parce que day gis ne beneen sens la gaa ñi dégg. day gis ne mais wax dëgg dëgg hmm. mooy sens boobu. day gis ne am na mbaam mais moom xamul na may téye mbaam. moom da koy gis rek mais bu doon moom a tey xëy na sax. mu am nu mu defee. caba ay si waale fi benn fuuñ fuuñ boo xam ne. Eh, baax nag bàyyi nag ñu wax nga ni man benn góor du ma fat. i génn sama tem. ah mais yaa fi dugg. yow yaay dugg ma fi parce que dama la xam xam naa la keroog maa ngi koy wax maas mooy bu fi nekkoon ba tey mënuma caba. non caba da nga yow bu ñu duggee ci jongee rek nga fëkk ko dugg ci biir. ah dina am barrage jaxase dugal sa damay liggéey rek wuy ma beneen yëre laa na yàlla na yàlla gaaw. pourtant war nga ma bàyyi ma xam ne damay liggéey rek man. damay gaaw ñëw nag ñu xool nag caba nag nu mu mën a. instant bi caba fi toog caba dara mi ngi si biti <laughs> dégg nga ma la wax. damay bañ damay nii la. <laughs> ma. tension de li jigéen ñi daj. kon anticiper bi nga war a anticiper. cey la ñu daj am cay la ñu daj. voilà sant yàlla voilà voilà voilà. 88 628 99 99 114 sëy na la neex amee na la naqari rek. sëy nag la war rek nga sant tabarkàlla bu doom juddoo rek nga bàkku. wallaay wallaay 88 628 99 99 114 bu amee ku nekk ci ligne bi ñu jokkoo ak moom allo allo. waaw nee na dikkagul euh, ndaw si ndeysaan li ko dal metti na trop te bari na si ay morom amoon naa beneen thème boo xam ne enregistré nañ ko xam naa soxna sos bu dee mi ngi seetaan moom itam maire la mag la léegi ñu jéggalu mag la léegi ba mu koy dal jeune fille la te dëkk ba maire bi euh, mag bii wax moom foofu la waxee itam ñu mhm. Mauritanie waaw allo sant yàlla mbokk mi waaw yaa ngi am jàmm waaw di sa di ñaan mu doy gannaaw du doy moom jàmm mu dolleeku jàmm yàlla yàlla yokk jàmm ji waay tur bi naka la amin kii Mansour Mbaye la kontaan teew bu baax a baax ah Mansour yaa baax foo dëkkee maa ngi dëkkee nag Saalum dëkk bu ñuy wax Taïba Mbayeen ah Saalum ñu ngi nuyu waa Taïba Mbayeen bu baax émission télé bi du ma tardé sa émission samedi rajo Pilou Fass yaa baax waaw dama koy arrêté sax di teg billaay yaa wax li Mansour Mamour nee moo la a yaa defal baara nag bu baax a baax ndax xam-xam rek lay génne wuyul Taïba Mbayeen fan nga dëkk ci Saloum Taïba Mbayeen Taïba Mbayeen gannaaw ka ma ji benn yaa ngeeg soxna non nag ma yëruma soxna waaw léegi nag waaw baax na après ku la bëgg. bis <laughs> jërëjëf yaa yóbbu fitam fi nii ne coppe na ñuy jéglu baax a baax kookee di eh, Mansour Mbaye soppe la Saalum la nekk gannaaw kër ma jabari ca tay ba mbayeen sama xel dem si Mamou Cissé ak ñoom Ousmane Cissé ku lim da ngay juum soppe yi tabarkaal di leen ziar bu wér 88 628 99 99 114 bëgg dafa bari façon bëgg dafa bari façon waaw waaw xam nga ku la bëgg nag bëgg na la na nit dana dara baale la li ci des la bëggee hmm. Hmm. Hmm. na la bëgg rek ci dafa bëgg am sopp nopp xëy xëy waaw bëgg nga wax de waxoo sopp lépp xëy lépp xeetu mbëgg la bëggee la rek bëgg rek nan wax bëgg sopp nag du bëgg ah sopp ah. moom ah. beneen beneen image la ci bëgg mais ñun tudd nu woon fii sopp waaw soppee la waxuñu woon fans hmm. nga toog takk sa kask wane sa façon nit ki woote yuuxu ba jooy caba <laughs> kooku ça cela ne veut pas bëgg na mais fans la. waaw mooy soppe la sopp na la. waaw waaw soppeel. soppeel sama soppeel. waaw bë bëggee la xet mais bëgg. ca ba bëgg ak gëm yàlla. <laughs> Eh, gaa yi def moo tax may loolu yëpp ay ah, xeetu ko def ay xeetu bëgg la rek mbëggeel moo bari façon dafa yaatu. pluralité de définition non yaa ngi mbëggeel nag léegi boo dee bëggeel rek yaa ngi ci. musique bee tax mu bëgg la déedéet ayoo euh, thème bee tax mu bëgg la col gee tax mu bëgg la oto bee tax mu bëgg la yaa wax bëggeel lu tax mu bëgg la <laughs> dafa am bëgg mais bëgg nit ki bëgg la te yàlla tax mais ngeen bëgg ante xëy na xëy na sëñ Fallou Cissé nga mu bëgg voilà xëy na sëñ Fallou Cissé mi ngi seetaan Fallou Fallou mën na ko lijjanti bëgg am na sopp am na nopp am na xejj am na xemmem am na lépp si xeetu mbëggeel la am na lu ko lal waaw mais yooyu yooyu lu mu ci doon rek mm. du luy continuer du luy continuer lu ah. instantané la ah, am na koo xam ne kii yow boo bàyyi woon tey télé bi pare na ci yow dootul la sax woo téléphone te pourtant bëgg na la hmm. voilà maanaam pas bëggu xem cof am ngeen cofeel. ah cofeel kay day wëy kay. mar day taale aussi loolu yëpp na gudd daal. voilà yal nañu si yàlla musal ah dara baax. parce que nit dina xemmem nit foofu jeexee nag xemmem nit dina xemmem nit munu koo jot mu takk ko. mu takk ko léegi mu am li léegi la la nga xam ne moom la. far bëgg ko la mu bëggoon bu ko amee. jeex na mën na koo takk bëgg ko. baara bàyyi ma eh caba duñ jubóo mën na koo xemmem takk ko dal ci ñaam joodo. ñaam joodo waaw dootu dem. léegi fekkee dalu si ñaam joodo nag. Ah, yow mu lor la yow la heure bi jox na loo ràbb rax ci përëm loo ràbb rax ci dënk la xaw ma. waaw jërëjëf. <laughs> tàggatoo jot waa xanaa rek di tàggu. jégalu di gërëmaat bu baax waa Touba. Mhm. Ah, Daaru Manaan ñoom euh, Dame Fall. Euh, Dame Fall euh, Daaru Xuddoos soxna sa jàng ba ma àndoon ak Bamba Dieye ndeysaan soxna kat yi géey yi ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi doon topp am na ku tudd fili fii ci koñ bi. Mhm. nee na sa doomu baay la. fili ah moo baax moo dàq sant léegi ma maa ngi leen di dàq maa ngi leen di seetaan. ndeysaan jërëjëf fili. ma xam naa daal di. béggee ñëpp rek d'accord di leen jox rendez-vous suba ak jàmm incha bu sobee borom subhanahu taala ñuy ziar bu baax sëñ Abdoul Karim Mbacke borom makarimu axlaa gis ni ñu dalalee si màggal gi ñu koy gërëm bu baax di ko jaajëfal di nuyu soxna si euh, Fat Bintou Pouy soxna Fat Bintou Pouy ñu ngi lay ziar bu baax madame Mbacke balay sa di ziar Pape Sène ak képp koo xam ne ma nga fa woon rek nuyu ñoom Mame Diarra Thiam di tonton Momar moom itam di ko jaajëfal si dalal gi tonton Momar Diop Euh, foofee ca Louga toute la famille ñu ngi leen di ziar bu baax Mame Diarra Bousso ñoom Seydina Omar Ba journaliste yëpp kontaan nañ ci yow di nuyu suñu maman Mariam Ndiaye ak euh, Serigne Djili di nuyu waa kër sëñ euh, waa kër Madike ñu ngi leen di ziar Mbaye Tyson yaa ñu nuyu suñu maman Adja Khoudiolo Guèye ñe maman Nenne ñoom ñëpp di leen ziar bu wér di kontaan ci kooku di Bousso wala mami chéri Elage copine yaa xaar ku lim rek da ngay maman Ndeye Marie Diallo maa ngi koy nuyu nuyu ma Abdou Diallo ñoom Taya toute la famille ku lim da ngay jiw madame Diop ziar nañ la bu wér mbokk yi mu nekkoon seen émission yor-yor ñuy jéggul nag si waa Médina xam naa seetaanuñu ñu ndax depuis démb si 13h amuñu courant ba tey. kenn mës la hmm? gis lii maa la wax lii 13h démb si Médina ba tey kenn amul courant. ñu nga toog feeñ tere kenn seetaan la. fa metti na. nekk hmm. yu nekkoon seen émission. yor yor révision kañ la. bàyyi ma euh, ñuy gërëm équipe technique bi ñu gunge woon dig daje suba merci à tous au revoir et journée peace.